salaamaaleykum mbokki téléspectateur yu TV tey ñu ngi woon fii ci maire bu Thiès ngir waxtaan ak askan mi décret bi président Macky Sall jël démb di ab couvre-feu jëmale ko ci Thiès ak Dakar képp de 21h à 6 du matin ñu dem xool askan bi lakkat naka nañ ko gisee. waaw maa ngi lay fay di la nuyu sama tur Ibrahima Wan la retraité de la NSS waaw. mu mel ni jamono ji ñu toll ba tey génneguñ ci jamono mbas mi. président Macky Sall jël ay décision ngir ñu defaat couvre-feu diggante fii ak Thiès naka nga gisee loolu. waaw sunu gis-gis mooy comme ni mu ko décrété vraiment nit ñi préparé wuñ ko quoi xalaatuñu woon ni deuxième vague fii Sénégal dina àgg ci ay couvre-feu wala ay état d'urgence te couvre-feu bi itam ni mu ko décrété am na si ñu bëri ñoo xam ne ni vraiment kii na seen bopp trop trop trop parce que dafa teel 21 heures dafa teel daal. waroon na ko yóbbu ay 23 heures wala heure au parce que comme ñu ñuy waxee naa loolu virus bi mu ngi ci jaww ji mais bëccëg bi moo gën a garaaw guddi gi ñu def ay ay couvre feu à partir de 21 heures jëm 6 heures du matin. ñu amul benn njëriñ man sama gis-gis amul njariñ quoi parce que de temps fait ñu ngi naan alors virus bi mu ngi ci ngelaw kon bëccëg bi nit ñi te bëccëg bi nit ñi ñëpp ci la ñuy circuler boo xoolee guddi gi ñiy génn ñëpp mooy ñuy liggéey ak ñooñu à part loolu xanaa ñiy dem ci boîte de nuit yi. waaw loolu kon boog bon virus bi man gisuma euh, couvre-feu bi njëriñam quoi. am naa dañ naan ñaari dëkk yooyu ñoo gën a animé wala bon peut-être xëy na ñaar ñooñu bu leen bloqué ñeneen ñi dinañ roy ci ñoom wala dinañ tiit wala dinañ ko gisee neneen ba nga xam ne dinañ jël yeneen mesure ak yooyu man noonu laa ko gisee quoi. parce que bu nee Thiès Dakar rek presque presque danay day ëmb Sénégal quoi Thiès Dakar dafa ëmb Sénégal parce que loo gis rek Sénégal en général li lépp lu ñuy préparé. buñ ko njëkkewul dakaar cees lañ koy njëkk mais loolu loolu loolu loolu cosaan la fii dafa yàgg loolu histoire la daal lu yàgg la depuis sama nay Senghor ba léegi noonu lay demee waaw noonu lay demee histoire bu yàgg la lépp lu nu njëkkewul dakaar cees lañ koy tàntee quoi fi mu ne nii Thiès nii buñ ko réussir rek yooyu nga dégg yeneen région yeeg yooyu yëpp dan dan dan ko koo koy c'est sûr man damay ragal ne alors ne peut-être politique bi gën see rax yooyu bu ñu fa àggee itam politique bi moo koy rax ban àgg foofu rek mais bu bu ñu continuer di sensibiliser population bi vraiment comme yenn service yi mesure de prudence yu ñuy jël ak yooyu vraiment kon war waruñoo àgg foofu quoi. couvre feu bi bon mën na noo wax ne alors politique lal na ko wala comme politique lalu ko foo foos foo foos foos foos si kii rek day am ay raison yoo xam ne nii di nga ko mën a débattre quoi waaw boo nee politique. parce que da xam ne alors avant sensibiliser nit ñi wax ne alors. taux de euh, nu mu tudd pandémie bi taux bi nga xam ne nii mu ngi koy engrainer fii au Sénégal par rapport ak première vague beeg yooyu moo tax alors ñu àgg fi sensibilisation boobu moo amul. moo tax boobu ñu bëri dañuy jàpp ne alors affaire bi politique la rek waaw tant que yeneen réew yi àgg nañ foofu rek ñu ne fa ñu àgg. xam nga yooyu nit ñi inventé wuñ ko ay feela yooyu réel yoo xam ne nii nit ñi dañ koo dund vivre ko waaw ñi nga xam ne ñu ngi suivre l' actualité gis ne toujours France. bu fa dara xewee wala bu ñu jëlee benn mesure rek subitement après Sénégal suñu dirigeants yi dañuy dañuy dañ leen di rejoindre ci loolu. loolu lu nu dund la loolu nit ñi inventé wuñ ko. c'est-à-dire loolu warul woon bett euh, waa Sénégal xam nga soo ngeen nekkee ci réew dëgër bopp bi dafa war a wàññeeku. defat fait que yéen ngi dëgër bopp nit ñaa ngi dëgër bopp te président moom la fi yàlla teg mu war a diriger sécurité lépp. mu xool ñu naan malade yaa ngi augmenté deux cent nangam nangam dafa war a jël ay responsabilités man nag su doon man la dinaa ko gën a sévéral par rapport ak li mu def démb da koy da ko waroon a gën a sévéral comprendre nga. da ko waroon a gën a sévéral dolli ci yeneen dëkk yi ba nit ñi xam bagage la climat bi dafa changé dafa sedd nit ñi ñun amuñu dara amuñu luñ lekk amuñu luñ naan affaire bi su ko nee di escanté nit ñi ñun fu ñu jëm na gars yi ak yar takk masque gérer situation bi après day dem qui fi nangam nangam dem mais président il def nice hein? problème. Raison de Thiès la Raison de Dakar le département hein? Raison la raison. Raison de Thiès xam nga fan ah dem après a nan dem <laughs> franchement parler je ne man pas. parce que solution là solution parce que depuis dix mois le Sénégal à travers le monde euh, chaque problème il y a, un problème corona vu que Thiès et Dakar nous avons une population bi effectif bi corona bi ah, ah, franchement parler Nous, nous nous ñun président comme que Dakar. maanaam yeneen région yi ndax dem fee bokkul wala daal wala daal feebar bi ci dakaar ak Thiès rek la yem man daal man maa ngi bëgg a xool mu xoolaat vraiment kii boobu ci point boobu nag. ñun ñii nekk Thiès moom loolu moom dañ ñoo metti parce que loo xool. loo xool ak loo ak dogal bi mu ñu mënti jël ñun dañ ah ñun daal waa Thiès dañ fiy gis seen bopp. couvre-feu bi mu génneewaat gis ñu si lu dul mitti ak dolli coono ndax ñun danoo sonn ba pare. naa ah, fi mu toll nii moom xëy na liñ naan dog nañ ko ñu doggali la ñuy xaar dañoo sonn lool Macky nag suñu coono mënu koo yëg parce que xëy na gisuñu pale gisuñu këram moo tax mënta yëg suñu coono waaye lii mu def moom place bii ñu ne tey bu fi newoon baa ku mel ne moom ne fi dina xam ne sonn nañu d'habitude dañuy xëy si sept heures ci suba toog ba ay yendu ba ngoon jot mën nañoo jaay mën nañoo bañ a jaay mën nañoo jaay mën nañoo bañ a jaay yàlla dogal buñ toogee ba 5 heures jëm 6 heures si lañuy ñuy commencé jaay jëm guddi yooyu itam day am des fois ñu xëy rek jaay des fois bu ñu jaayee teel a wàcc yenn saa ñu guddee wàcc dañ fi toog des fois ba minuit ba une mais bu fekkente ne daf ñëw tëj ci ay vingt et ci yoo xam ne ay corona. man dama def ne corona xana toute la journée la wara guen waye corona goudi lay guen wala dimanche si marché bi corona dafa am jour yu guen génn ak yu dul génn ak heure yu muy génn ak yu mu dul génn amul benn njariñ day gëna sonal nit ñi rek day gëna sonal nit ñi day gëna sonal nit ñi nak nit ñi buñu forcer guen di luñu lek mba mbaa naan bakkan mën na tëdd ah parce que nit ñi kën du leen tekk te duñu lek duñu naan du ñu faj seeni soxla du ñu yor sunu doom yi di xëy di tàllal sunu loxo sunu boroom du ñu ay fonctionnaire dañuy xëy di taaba taaba lu ñu am balaa ñoo dépense taaba taaba balaa ñoo añ noonu balaa ñoo reer noonu ñu ñuy xëy di ñu tëj. am na ñoo xam ne vingt et la ñuy commencé jaay jëm bu set am ñoo xam tamit heure boobu la ñuy commencé seen yeneen fonction seen liggéey jëm bët bu set kon bu ñu bëggee tëj naan ay vingt et une heures waxuma nag mu naan ay kees ak kese. comme si que ñun ñooy esclave yi mbir mi dina doy waar. ba pare nag dimanche ba dimanche la la la corona di génn toog ci marché yi ak 21h la corona war a génn ci guddi gi corona mu xam bu xëy nelaw bu fanaan dox ba set bu xëy nelaw ah man de mbir mi damaa jaaxal wax dëgg yàlla jaaxle nañ ñool daal fu jaaxle yam jaaxle nañ ñun nañu bàyyi daal lu ñu corona def baax na lu ñu am cër. voilà mbokkute téléspectateur yu Prestige TV tey gis ngeen li askan bi wax ci couvre-feu boobu Macky Sall décrété démb ñi nga xam ne nag ñoo ci jaaykat yi yaakaar nañu ñoom ñoo ciy gën a loru askan bi nag ñii d'accord nañ ñii d'accorduñu nañ dem rek ba ci kanam ñu xool nu wànnent di mujjee ki gëtëm jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje ci beneen reportage ak ci beneen thème jërë ngeen jëf